waaw dégg naa mu parle de dialogue solution pour apaiser la hmm. solution c'est c'est de dialoguer. mais <laughs> mais je pense que ñu bari si ñoom dañu xamul que ce sont les références et les termes pour dialoguer. dialoguer quand il y a un conflit on l'appelle approche de résolution des conflits approche de résolution conflit il y a deux a les mécanismes traditionnels ce qu'on appelle ay concept marabout yu dugg jeeg yooyu. ak wax seen biir dialogue ak les mécanismes modernes moo faire intervenir des institutions internationales comme ay OIA ONU CEDEAO Union européenne des institutions étatiques ou des institutions internationales mais quand on dialogue ils n'ont pas compris dialoguer ça veut dire que les deux parties viennent se rencontrer chacune de ces parties day présente ses griefs jëm ba tey maa ngi gis ne la ñu naan celui qui vous appelle au dialogue c' est démagogique c' est pas conforme c' est dans la forme mënta nekk. ah bon oui en dialogue da nekk présenter ses griefs wax li ko li bëgg ak li ko naqari yow nga wax li nga bëgg ak li ñu ne dèjà nag ñu jël ko point par point. door a bi mooy dialogue loolu mooy loolu mooy préalable. mooy préalable dialogue. waaw foo ngeen toog yéen ñaar ku nekk wax ay griefs. waaw loolu c' est comme li mu jox ni li ko naqari. wala li mu bëgg rek lay wax. kenn ki wax ne man li ma bëgg ak li ma naqari lii la.

mooy greffe mooy greffe li lay nax. mais pourtant la nit am ay préalable. c'est ça ko jiitu. bu ñuy dialogué peuple bi di xaar loolu mooy. da ngeen di toog wax seen i nag les greffes c'est là-bas où l'on définit le terme de référence. le le thème du dialogue national de cette année euh, se définit sur les points ci après bu ko neexee mu ne candidature participation ah euh, nangam nangam loolu mooy dialogue dialogue dañuy indi ay termes de référence. et ah, les termes yëpp paas yëpp noonu la demee woon. non terme de référence ngay indi d' abord mais kooku c' est prévu dans partout dans le monde bu ñuy demee même Union européenne bu ñëwoon def audit bëgg a réconcilier les parties day def audit day ñëw ci laaj lañ leen naqari dem ci keneen laaj di ko naqari. mais loolu lañ fi wax. loolu lañ leen wax donc daal dañuy ñoom dañuy joxe terme référence ils ont rek même Barthélemy Et tout à l'heure, lui, ici aussi, il a parlé de termes de référence sur lesquels on dialogue. Quand on de référence à lui qu'on appelle grief. yow ku nekk da nga naan man jëkkër ak jabar bu ngeen xuloo danga nga naan lii la ma def ki sa jabar ni li ma def sa jëkkër jël lu taxaw daan ne kii day day doxi day nangam nangam nangam ci doxi boobu wax la mu bàyyi ko nangam ndaw si naan man doxi ma damaa demoon ngénte ah mm. bu ma demee ngénte day kaas su ma demee marché moo tax seen problème démb ba tey il parle de il faut qu'il maîtrise et qu'il sache et qu'il soit informé des termes de référence. Mmh. C'est là-bas où est parti le problème. Quand quelqu'un vous appelle le dialogue, vous venez, le modérateur, modérateur day toog nous nous sommes rencontrés mm-hmm. ici pour pour pour entamer le dialogue national mais au préalable il faut qu'on définisse entre nous les points sur lesquels nous allons discuter mm-hmm. léegi nag points yooyu nag mooy on les appelle des des griefs chacune des parties les les opposants vont dire ce qu'ils veulent l'État aussi dit ce qu'ils léegi nag le modérateur avec eux ils vont attaquer dans des ateliers bi finalement parce que quand chacun présente explique fait des expositions de motifs mais il y a des ateliers où chaque atelier fait des conclusions pour dire que fii kat ils ont raison fii celui-là a raison léegi nag bu ngeen ngeen aller à la concertation maintenant sur ces points pour trouver un terrain